asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di baal ñëpp tey baalu ñëpp àq di yëkkati kàddu rek di baalu réew mi ci turu ñun ñii politique guddi yi naam ci élection li ñun ñëpp boole doole yi jéem a inventé une sécurité solidaire au plan local. naam état ngi def waaye ñëpp gis nañu insécurité bi jël na waaye taluñ dara ñi ci ëpp ci ñun ñi leen ñor mooy nu ñuy faloo sama liste am na solo naam mais moo lay renseigner encore une fois ci ñun acteur politique yi ëpp ci ñun nguur képp doomu kese mu yëkkati ndax leneen lu ëpp ful fayda li xew ci réew mi léegi muy bés boo yeewoo mun la ñaar ñett dee nañ ñu waroon ci gën a taxaw amut ñu ngi ci mbiru élection te encore une li xew ci élection wax ji bari bari bari bari li waaj doon wax wax ji ci bindum tel gaa ñi amul baax mooy ñi matalul ñi mënul ñi nga xam ne def nañ preuve de légèreté loolu dëkk bëgg fal warul tax ñuy laam-laame ay erreur yoo xam ne ni déjà ku mënul defar une liste de cinquante trois personnes de 46 départements lan ngay il y a une légèreté notoire qui est récriminée. de te ñoom ñu waxal ko seen bopp ndax amul kenn ku kenn ça tourne autour de deux coalitions c'est ça la vérité Benno Bokk Yaakaar Yewwi Askan Wi te nyom nee kat nyom nyom. coalition yi gën a mag bu fait qu'ils sont pas capables de réussir de faire une liste normale il y a de quoi se poser de réels problèmes encore que dara lu officiel génnagul ay mandataire ñooy génn di ya y a aucune base légale juridique bu nit mëna sukkandiku su moye rejet bi ñu notifié yeewi askan wi ci Dakar ak mbiru parrainage yi nga xamné ni def nañ ko ñom bugaan ak ñooñu ndax kat le 29 ma fàttali ko ñi xamul aljuma bi ci le directeur des élections di publier liste et à partir de aljuma coalition bu nek am nga 24 heures pour me saisir conseil constitutionnel sur d'accord ci mbir moom te conseil constitutionnel su ma jumlee 72 heures pour mun ci àddu lu fi jar daw lu fi jar yuuxu lu fi wax à moins que nga nangu ni da nga fóote te nag coow li le seul consensus qui sera accepté qui doit être accepté c'est que ni la loi soit dite que ceux qui ont fauté soient punis Ni seen liste mat dem élection Sénégal na ñooy 2007 opposition bi yëpp dañ boycotté won fi élection terewul Sénégal dox parti bu ci matalul sa liste parti bu ci coalition bu ci matalul sa liste jaaroo ci yoon ñu teg ci ca xaj te avancé lii mooy dëgg bu fi kenn jiiñ kenn lenn ku ne la la dal ya ko teg sa bop que les gens assument et qu'ils soient courageux de leurs erreurs de leur légèreté Sénégal jëm ci kanam may wo nak liste yi nga xamni ni jall matal ko yoon ñu am fulay taxaw amul négocier amul baara yego ku wu ca xaj ñi matlé dem élection di jéggalu bu baax ci wax ci su dee 10 na waye parfois on est indigné par une certaine manipulation d'une certaine classe de la politique incapable de réussir à faire des listes bëgg tympaniser ñi société civile bi woté ci ay baara yi ki lam nous voulons que le droit soit dit point nous attendions du conseil constitutionnel de la direction des élections qu'il applique la loi électorale point barre fi ak bob nak na ku nek sa koñ am fulla ak fayda gu organiser

ndaw ñu am fulaak fayda bu len kenn wo ci len luddul dul seen njariñ seen yokkute parce que bu tànn joté wala élection jot ñom seen bop la ñuy faté ndaw ñi vive le Sénégal vive la démocratie Sénégal vive la vérité mooy njëkk mooy mujj asalaamaaleykum wa rahmatullah li may wax nak man Moussa Diakhaté man la engagé engagé wul bokk gis-gis engagé wul keneen sama gis-gis la sama cri de cœur la et je tenais à le dire et le partager avec tout le monde lu ci dëng ñu ngi koy jéggalu mais c'est parce qu'on est indigné on est vraiment dépassé par cette manipulation là kon boo xam ne ni kenn xamul wax ni dëgg kepp doom rek salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu